qur'aana ngi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di di am mbégte kontaante ñëwaat ak yéen ci suñ darsi tafsirul quranul karim yal na yàlla defal ñu dégg topp di ñaan yàlla subhanahu wa taala fukki fan yu mujj yi nga xam ne ñu ngi ci ci koor gi yàlla ñu ci yàlla defal jàmm ubbil ñu si bunti xéewal ak wërsëg may ñu ñu eggale ko jàmm lépp luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñu ngi woon ci suratul qalam démba moom la ñuy eggale incha allah yàlla mu waxee nag ña euh, miskin yi ci tool ba ba pare nag mu ñëw nag si ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla nag ñi nga xamante ne nii ñooy ñu baax ñi ñi nga xamante ne nii mooy ñu texe ñi lan la leen yàlla fay mu ne ndax danaa def ñu ñu dul jullit ñu mel ni ñuy jullit déedéet mënu ñoo yem yàlla mu ne inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim afa naj'alul muslimina kal mujrimin maa lakum kayfa taxkumuun am lakum kitaabu fiihi tadrusuun inna lakum fiihi lama taxayyaruun am lakum aymaanun calayna baaligatun ila yowmi alqiyaamati inna lakum lama taxkumuun salhum ayuhum bidalika zaciim am lahum shurakaau falya'tuu bishurakaa'ihim in kaanuu saadiqiin yowma yukshafu can saaqin wa yudcawna ila alsujuudi falaa yastatiicuun خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت iz naada wa huwa makdum lawla an tadaarakahu nicmatun min rabbihi la nubiza bil araa'i wa huwa mazmum fajtabaahu rabbuhu fajacalahu min as-saalihin wa in yakaadu alladina kafaru la yudliquunaka bi absaarihim lamma samicu dikra wa yaquluuna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrun lil aalamin yàlla di wax ak ñi nga xam ne ñooñu ragal yàlla mu ne innalil muttaqiina ñeel na ñi nga xam ne dañoo ragal seen boroom dañoo ragal mbugalum safara di def lu baax di bàyyi lu bon mu ne lool ñooñu de ñeel na leen inda rabbihim fa seen boroom muy yowmal qiyaam jannaati naim ay àjjanay xéewal àjjana yu neex yoo xam ne dañ leen fay xéewal yàlla nag mu ne yowmal qiyaam ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ak ñi nga xam ne duñu jullit ñu baax ñi ak ñi nga xam ne dañoo kàccoor mënuñoo yem yow tey boo amee say soxna sax ki baax ak bon mënuñoo yem ci yow waxuma laa nag ca yàlla yàlla mu ne afa najaalu ndax dañuy def al muslimiina ñu ommatu nekk ay jullit kal mujrimiina ñu yem ak ñi nga xam ne ñooy kàccoor ñi ñii dañoo wéetal yàlla jaamu yàlla gëm yàlla ndax dinañ leen def mukk moos ñu nuroog ñi nga xam ne ay kàccoor lañ gëmuñu yàlla wala dañoo weddi yàlla yàlla mu ne maa lakum lu leen dal kay fa tax ku mun a ba ngeen di àttee nii ah ba ngeen di àttee nii yéen yi ba bëgg a jël ki nga xam ni dafa am day jaamu yàlla ak ku dul jaamu yàlla ngeen def leen ñu nekk benn loolu mënut a nekk am lakum kitaabun wala ndax da ngeen am beneen téere boo xam ne dafa wàcc si asamaan bu ma man yàlla boo xam ne fii tadrusuun si ngeen di jànge nekk ku baax ak ku ñoo yem yàlla mu ne di fi nekk kay inna lakum ñeel na leen fii ca téere boobu lama taxa yarun la ngeen di tànnal seen bopp rek yéen daal leen neex ngeen ci jël lu leen naqari ngeen bàyyi waaye téere boobu moomu leen ko nag am lakum wala daf leen a ñeel ay maanun ay ngiñ seede yoo xam ne alay naa dafa bàyyi ko si ñun yàlla baalixatun yoo xam ne dafay jotal ilaa yawmil qiyaamati ba bis penc mbax maa leen wax loolu inna lakum déet yéen kay lama tax ku muuna ngeen àttee leen neex rek yéen kay ndax man maa leen wax dara ne nii laay àttee yowmal xiyaam wala yéen da ngeen di wax rek lu leen neex yàlla daan ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam nag salhum laaj leen yow yenent bi ayyuhum ana kan ci ñoom bi zalika zaim moom mooy ki nga xam ne mooy àtte loolu wala moo jiite loolu am lahum wala ñoom da leen a ñeel shurakaa'u ay bokkaalekat ay yàlla yoo xam dañ koy jaamu ba yàlla yoo xamante nii du jëriñ du lor fal yatu bi shurakaa'ihim nañu indi seen bokkaalekat yooyu ñuy yaakaar ni dañ leen leen jariñ wala ñu lor leen inkaanu sadiqin bu fekkee dañoo dëggu bu ñu dëggoo nañu indi bokkaalekat yooyu nañu indi yooyu ñuy jaamu yàlla mun ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis bu ñëwee <laughs> dañuy nekk ñoo xam ne dañ leen di xàmme de ñoom ñoom ñoom yéeféer yi waaw mbir mi dina tar ci ñoom lool yàlla di fay nag li nga xamante ne mooy jaam ñi su yàlla ñoo dafay wuññi li nga xam ne mooy yeelam bu tedd boobu nga xam ne mënuñu koo nuru leeg lenn daal leen ne nag ñoo leen sujjóot su boobaa ñuy jullit rek ñooy sujjóot waaye ñu dul jullit kenn du sujjóot waaw abu hurayra eh, buxaari buxaari ak muslim solo nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla subhanahu wa taala day wuññi yeelam ba ëllëg yowmal xiyaam nee na ñëpp ñu wax képp koo xam ne jullit nga bu góor ak bu jigéen da ngay sujootal yàlla buñu gisee yeel ba dañ koy sujootal waaye nag képp ku daawul julli ku rëy ku daan déggtal nga xam ne wala julli nga danga ko doon def ngir ngistal rek moo boobaa da ngay bëgg a sujoot waaye doo mën ginnaaw gi day mel ni dañ koo togg dañ koo tabax benn tabax boo xam ne du mun a sujoot yàlla nañ musal ci loolu moo yàlla mën a yow ma yuk shafu bis ba dinañ ñaan saaxin ci ab xaw na wayu daaw na ñu woo leen ila sujudi si sujud fala yastatiuna duñ ko mën parce que daa wuñ ko def fii ci yowmal àdduna kuy si ku dul sujud fii doo ko mën ëllëg xaashaatan ñuy way buqi absaaruhum seen bët ya tarhaquhum dina leen muur zillatun tàngee ñu xulli seen bët ya ba mu ba mu ngand ndax lan dañoo torox dañoo waar dañoo gis mbugal moo xam ne wuñ ko woon waqad kaanu nekkoon nañ si àdduna yu daaw nañu leen di woo ci ila sujudi si sujud ñoo leen julli di wéetal yàlla kese waxum ñoom saalimuuna booba dañu mucc lañ ñu amoon kàttan lañ ñu wéroon lañ waroon nañoo mën a sujjoot waaye réy réylu ak bañ a yàlla bañu sujjootal yàlla moo leen ci xiiroon yàlla mu ne yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne mooy yéefar yi ñi bàyyi di weddi alquran bàyyi maa ngi ñoom rek fa zarni bàyyi ma yow muhammad wa may yukadibu ak képp kuy weddi bi haazal xadiis yi ci wax jiidi di alquran képp ku koy weddi bàyyi maak moom dinaa ko fay fay dinaa fayu sanastadrijuhum dinañ leen xaar dinañ leen ubbil bunt yoo xam ne bunti wërsëg la yu bari si àdduna daal di nag toog di leen yeeru mbin xaysu laa mun fu ñu xamul toog nag di leen xaar fu ñu xamul mooy lan ëllëg yowmal xiyaam <coughs> yàlla léeg-léeg mu defal la loo xam ne <laughs> mu defal ñi nga xam ne dañoo réer dafa leen lépp loo xamante ne lu baax la léeg-léeg sax jullit bi nga dégg mu ne ah ñun kat ñiy jaamu yàlla daa mel ni ñoo gën a ndóol ñoo gën a sonn ñi dul jaamu yàlla ñoo gën a am ñoo gën a riche waaye loolu yàlla daf koy def rek ngir istidraaj maanaam daf leen di yeeru rek jox leen lépp ñu daal di su ko fee nag ñu daal di nekk ñu yaatu fii ci àdduna waaye yàlla mun a bàyyi leen ba yowmal xiyaam ba ma ñëw su ba ñu ñëw bu ñu ñëwee dina xam ne day dinaa leen eh, mbugal wa um lii lahum yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow lépp yàlla dalal xel yenente bi mu ne ko muñal leen rek fenkat yi ak weddikat yi muñal leen fi yaakaar ne ñu nañu yàlla mënu leen a mbugal waaye inna kay di naka sama pexe matinun lu dëgër la li ma leen di pexeel ñoom yéefari lu dëgër la lu am doole la kenn mënu koo dindi am tas aluhum am euh, ndax danga leen di laaj ajiran pay fahum ñoom day min masqa min maghramin ci ay garanti musqaluna yu ñeenu la ba diis ñoom jaru sax leen di laaj fay waaw wax ji nga xam ne moom ngay wax nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam jarul nga leen ci laaj fay de bàyyi leen noonu rek am indahumul xaybu wala ñoom dañoo xam li fàggu fahum yaktubuun wala dañoo fekk la yàlla di bind ñoom xamuñu lu fàggu xamuñu la yàlla bind xamuñu la nekk ci lawhul mahfuz li ñuy ate wo rek mooy seen bëgg-bëgg ñoom waaye nag xamuñu la yàlla defal ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi gëm yàlla yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi fasbir dëgg-dëgg muñal yow muhammad muñal ci lii nga xam ne moom la la yàlla jox muy risaala bi alquran ji muñ si muñal seen lor yi nga xam ne moom lañu ci lor li xaq mi rabbika sa àtte boroom yàlla day gis na lépp waaye yow muñal rek wala takun bul nekk mukk waay ka saaxibil xuuti mel ni boroom jën ba boroom jën ba mooy kan yunus alayhi salaam ba mu wootee ba sonn wuy wuñ ko ci la meree nag nitam ña daal di mën a ñàkk mën a muñ daal di daw nag dugg ca géej ga is naa daa ba mu wootee moom yunus waxu wata fekk moom màkk ruumun mi ngi nekk koo xamante ni dafa fees dell ak mer ndax lan eh, yàkkamti woon na yàlla mbugal leen mu gaa di génn nag mer eh, te yàlla digalu ko woon mu dem mu war ca gaal ga dugg ca ci la ko jën ba daal di wanne duga wan jën ba ci la woowee yàlla nag ne ko laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin yàlla daal di koy nangul ñaanam daal di koy nangul tuubam génne ko ci biiru jën ba moo tax dañuy wax ni képp ku am problème képp ku am nattu képp ku am lu metti même ku ëmb sax di di di matu nay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin benn buur bu ñuy jaamu amul ku dul yow yàlla sell ñeen na la man de tooñkat laa dama bokkoon ci tooñkat yi ñaan bi yaay mooy ñaanu yonent yàlla yunus képp ku am problème di ko ñaan yàlla mën naa dindi wala mu def li nga xamante ni mooy sa euh, problème boobu mu nekk banneex wala mu dindi njàqare googu moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fas bir muñal wala takkun bul nekk mukk fas bir muñal li sa àtte boroom maanaam boroom bi nu mu yéexalee mbir yi nii bul bul saalik muñal rek wala takkun bul nekk ka saaxibil xóoti kom boroom jën ba mu yunus isnaadaa ba mu woowee rabbahu boroomam isnaadaa ba mu wa huwa fekk moom maxsuumun mi ngi mer yàkkamti yàlla alak ñooñu lawlaa an tadaarakuhu bu dul woon ak daf koo dab ni'matun xéewal min rabbihi bu bàyyi ko sa boroom man yàlla day maa ko dabee xéewal ko mu daal di tudd yàlla sàbbaal moo tax ma daal koy sauvé la nubisa kon day dinañ ko sànni bil araa ca biiru jën ba mu nekk koo xam ne dafay alku wa huwa fekk moom maz mumun mu ngi nekk koo xam ne yàlla dafa ko yejji ndax li mu ñàkk muñ ci mbiru yàlla yi waaye nag yàlla dafa nangu ci moom tuub daf ko may mu nangu tuub moo tax mu ba mu ñaanee ñaan ga rek yàlla génne ko ci biiru jën ga mu génn ci tefes ga fekk nag nekkul koo xamante ne ni ku ñu yejji la nekkul koo xamante ne nii ku ñu sikkal la yàlla daal di koy wàcce daal di koy def mu nekk koo xamante ni yenent ab yenent yàlla def mu nekk nit ku baax fajtabaahu rabbuhu yàlla daal di koy tànn mu nekk koo xamante ne nii fajaalahu mu def ko mina saalihiina ci way baax ni daf ko mujj def mu nekk mu bokk si ñi nga xam ne dañoo mat dañoo baax ñi nga xam ne ñu ngi woote ci yàlla ñi nga xam ne ay yenent lañu yoo xam ne yu baax lañ yàlla mu ne yakaadul lazina xaw na ñi nga xam ne kafaru weddi nañ la yusliquuna ko ñuy luqi la yow muhammad ñu daal di lay catu ci seen bët yu bon yu ñaaw yooyu alak la ci seen bët yi dañ leen dañ daan xool yenente bi xoolu mbañeel xoolu mbañeel lañ ko daan xool ba benn seen bët yi sax dina lor yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi absaarihim ci seen gis ya lamma sami'u bañ déggee azikra alquran bu ñu déggee alquran dañuy buqeeku mer bañ la di la xool bët yu bon wa yaqulu na ñuy wax innahu la majnun kii da ab dof la ay waay dof bi ku sa yoon sa yaay jur ko de ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf la wama huwa te lii alquran ji nekkul illa zikrun lu nekk ab waaraate lil aalamiina ñeel ki nga xamante ne ni moom mooy ñeel mbindeef yëpp yàlla dafa wàcc alquran pour lan mu waar leen wàcc alquran pour mu defar leen wàcc alquran pour ñu gëm borom bi subhaanahu wa taala lii pour mu jariñ leen tamit àdduna ak alaxira waaye wàcce wuñ ko pour lan wàcce wuñ ko pour mu lor leen waaye dañoo xamul rek moo tax wa in yakaadu bii day léeg nga gis ñu ne boo boo fekkee sax nit ñi dañ lay cat wala yooyu <laughs> man nga ko di ko ñaan <sighs> yàlla mu yàlla loolu la mujjee tëjee aaya bii nga xam ni wala saar bii di sootul xalam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéefar yi de xaw nañu lor la ci seen bët yi bëq seen bët yooyu bët yi bon yooyu bu ñu déggee ngay wax alquran ñu naan kii moom dafa dof waaye nag alquran ji jàng la waaraatale ñeel ñi nga xamante ni ñooy mbindeef yépp ñépp ciy jariñu képp ko jàng rek dang ciy jariñu déglu ko sax njariñ la kon lii mooy li ñu indi woon ci suratul qalam muy yeggali bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu dégg topp ñu baag jaam ak salaam incha allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi jàng ko ma ngi yiw ashrun ca xarf